Euh, dañuy taxaw d' abord ci la DPG euh, du premier Ousmane Sonko nga nekkoon député à l' assemblée nationale euh, coow li bëri lool ci règlement intérieur constitution ce débat yow lan la lay inspiré ce que vous en pensez. non débat bi dafa révéler le vrai visage de la majorité parlementaire actuelle en termes de carence lan la problème dafa simple bu fekkee ne constitution en son article 55 daf ne le premier ministre après sa nomination fait sa déclaration devant l' assemblée nationale ok maintenant le règlement intérieur assemblée moom mooy déterminer les conditions de son fonctionnement et de son organisation. Mm-hmm. yow tey soo ma nee pour dugg fii 7TV pour def émission lii ak lii ak lii condition nga war a def pour dugg su ma remplir conditions yi du damay dugg. Mm-hmm. mais soo génnee conditions yooyu est-ce dinaa mën a dugg c'est la même chose assemblée mooy déterminer yow en tant que premier ministre ci yan conditions nga mën a ñëw pour dugg foofu pour mën a wax assemblée boobu moo génnee lépp loo xam ne c'est rattaché au statut de premier ministre. et ce qui déglu ma. assemblée mooy accueillir l' assemblée la constitution dégage les traits généraux moo tax assemblée ne ceci assemblée du dugg ci yeneen précisions yi. Mhm. règlement intérieur assemblée nationale nga xam ne moom moo lay accueillir ñoom ñoo effacé lépp luy premier ministre léegi yow ci yan ci yan base ngay duggee foofu te assemblée nationale règlement intérieur assemblée nationale encore une fois xam nga ban valeur la am c' une loi organique loi bu am doolee la. il lu ñuy wax loi organique pour nga am unité soo koy voté à l' assemblée il te faut les trois cinquièmes sinon du jàll léegi boobu moo dem ba mu effacé ba ñoom bu ñu restaurer encore poste premier ministre ils n'ont pas été conséquents pour que ñu topp impact bi par rapport au règlement intérieur loolu carence la. mais foofu aussi tous les députés auraient pu être euh, vigilants alertés sur la situation. loolu déglu am na toujours kuy assumer. les organes institutionnels c'est pas pour rien qu'il y a un président c'est pas pour rien qu'il y a un a une contrainte de président c'est pas pour qu'il y a des commissions mhm. etc c'est pas pour qu'il y a une plénière tout est hiérarchisé il y a un responsable moral le responsable moral du fait de hasard il est toujours issu de la majorité c'est de majorité mhm. eux qui choisissent l'ordre du jour ñoom ñoom ñooy def ñoom ñooy def ñoom ñooy def c'est eux qui assument la responsabilité te gàcce bi ñoom ñoo koy porter mhm. une minorité ne peut pas faire lu mu gën a révéler aussi c'est important nga lan moo indi yëpp c'est que les gens oublient vite mi ngi doon travailler pour son deuxième et dernier mandat normalement il se trouve que en Afrique de façon générale ak au Sénégal de façon particulière souvent booy def deuxième mandat doo nangu am premier ministre parce que heure boobu guerre de succession mooy am képp ko tàbb pour premier ministre dañuy xalaat ni moom mooy nekk premier ministre xeex day am léegi ci la jóbu ne moom daf koy supprimer mu supprimer ko jàll mu amaat volonté indi les morts là léegi bu mu amee troisième mandat mu doon wut fusible mi ngi doon wut fusible bi yoon boo xam ne mooy dem ni moom mu nekk ci ginnaaw. Mm, mooy féetewoo coow mu restauré waat le poste de premier ministre. mais boobu fekkoon na ba muy supprimer le poste de premier ministre assemblée règlement bi tam dañu ne comme premier ministre amatul. ñoom ñëpp ñu ne toutes les dispositions concernant premier ministre dañ koy rocc. léegi kële bu ko rétablir la te ñële rétablir ñoom dysfonctionnement mooy am te ñun au nom de la bonne nga xam ne moom la ñu prôné mënuñu dem foo xam ne. dysfonctionnement dafa am. ah et par rapport à, à la sortie du premier Ousmane Sonko euh, di wax justement ci loolu les députés de Benno se sont sentis un peu euh, wala euh, ba tax ñu ne dañuy voter loi dañuy proposer ñoom it benn loi euh, pour justement que présidence président du amati le pouvoirs de dissoudre l'Assemblée nationale euh, foofu aussi euh, ban ban lecture nga ci am. évoquer leur pouvoir pour pour fayu. xam nga lu ñu wax proposer loi il faut être 40 pour que ci contexte actuel nga xalaat ne di def proposition de loi ba ñu nangul la ko ba nga il faut vraiment carré. xam nga lan la benn chance jàll waaw xam xam nga man j'ai député. bien sûr j'ai le vice-président de la majorité. Mhm. donc dund naa ci position bu mel nii. te ñun suñu niveau c'était très élevé. <laughs> le problème c'est simple. c'est-à-dire lu ñu wax proposition de loi mooy lan l'initiative vient du parlement. Mhm. mais bul xam le cycle de vie de cette initiative une nouvelle majorité parce que la nouvelle majorité de l'exécutif ne se reflète pas au niveau du parlement loolu mooy problème mm-hmm, mm-hmm. alors léegi yow nga bëgg jël benn initiative boo xam ne buy jaar forcément j'ai mon mot à dire pour man ma valider la ko pour yow nga rey ma le président a son mot à dire non l'exécutif c'est-à-dire okay. je veux dire que une proposition de loi amul doole dans le dans le dans dans le contexte du Sénégal où le régime est présidentiel ay initiative yooyu parlementaire mënul prospérer face. mais blocage bi fan fan lay jógee foofu laa bëgg xam. moom la wax du point de vue du cycle parce que ce qui se passe. Mhm. au moment nous passons depuis le 30 l'assemblée au nom de la session unique est en vacances d'accord. Mhm. su amee ay faits majeurs mën nañu leen convoquer en session extraordinaire mais sinon septembre mois de septembre du ñoom de. Mhm. mais septembre. ci la concerne pas l'Assemblée ça concerne simplement l'exécutif le ministre des Finances en rapport avec le premier ministre ak le président mm-hmm. octobre on ouvre la session première chose c'est le renouvellement des organes cest le bureau de l'Assemblée on monte les commissions etc tout et le premier projet boo xam ne moom la ñuy tablé c'est la loi des finances il y a rien d'autre mm-hmm. qui, va bientôt disparaître dans quelques semaines ay loi cest loo jotul def pendant douze ans nga xaar ba mu wóor la ni tu es dans le coma tu en fin de cycle mhm. ci ngay réveillé pour ni lii ak lii ak lii laay def initiative parlementaire dans le sens de faire une proposition de boobu du dem fenn du am ils vont ah. se ridiculiser dañuy sax ils sont carant ku xam ni nu muy fonctionner doo ko wax parce que nit da ngay wax loo xam ne franchement ku ko dëgg de mhm. yenn na maanaam un mhm. Deuxièmement, c'est que leur cycle de vie est terminé. Mais justement par rapport au, au vie. vie kañ kañ la war a jàmm. maanaam les deux ans septembre la wala juillet bi ñu nekk. alors dëgg naa dëgg naa ay wax yu bëri ñi. oui voilà lan moo koy wone. yow député nga man depuis te au mois de juillet on est élu. Mhm. mais est que boobu am na président amul président. est que boobu am na bureau amul bureau. est que am na commission léegi yow c'est une question de bon sens. Mm -hmm. alors dès la phase d'installation ci la ñu lay jox ce qu'on appelle les attributs de pouvoir pour que nga a exercer par rapport à ton niveau. Ah, mais mais justement am na. Euh, donc septembre parce que d'accord merci beaucoup.